الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة
وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ila yawmi diin amma baad mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala gannaaw loolu sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran alkarim ne laqad manna allahu ala almuminin yàlla day defal na ñi ko gëm xéewal id baata fihim rasulan min anfusihim ci yónni gim yónni ab yonent boo xam ne ci seen biir la ko tànne maanaam ci biir doomu aadama yi indi lu leen malaaka indi lu leen jinne waaye nit la leen indil rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayaatihi mu di leen jàngal alquran wa yuzakkihim mu di leen yar wa yuallimuhum alkitaaba walxikma mu di leen jàngal nag li nekk ci biir alquran ak li nga xam ne mooy xikma danañ xam lan mooy xikma léegi xoolal diggante yatlu alayhim ayaatihi jàngal la aayay alquran mooy mokkalal la ko loolu mooy étape bi war a jëkk ci njàngum lislaam yatlu alayhim ayaatihi jàngal la alquran ba nga xam xaraf bi mën koo mokkal waaye nag wa yuallimuhum alkitaaba nag mooy jàngal la li nekk ci alquran nag ba nga xam lim lay wax lu mu doon xam ay ndigalam ndax nga mën koo def xam ay tereem ndax nga mën koo bàyyi mu ne wal xikma alquran ak xikma moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon di ko jàngale si xam nga ne arab bu dee nàngam ak nàngam te yaakaar naa ne làkk yépp sax noonu la mooy kuy lim ne nàngam ak nàngam xam nga ne nàngam ja nga jëkk a wax ak ak jëla ca tegu yooyu bokkuñu mënuñoo bokk ñoom ñaar su doon lenn li doone nangam ak nangam kon xikma leneen la lu bokkut ak alquran loolee nag mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo fekk alkitaab ci alquran ñi tudd ko muy alquran ñi teg ca alxikma xamal ne loolu mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu tax ñu wax loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo ci ne alxikma mooy sunna waaye fu ñu ko teg moo di kenn ku ne xam na ne yàlla lim digal ab yonentam def na ko maanaam jàngal na leen alxuraan ba noppi jàngal leen leneen leneen loola lan la mooy bu ñu xoolee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale lépp te du alxuraan loolu mooy sunna amut leneen lu mu leen jàngal lu génn sunna loolu moo tax ñi dogu ne alxikma kon mooy sunna borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxin yuha nee na yonentam boobu du wax ak neen du wax ak neen lu mu wax rekk dëgg la ndax nee na in huwa illa waxyun yuuxa nee na lu mu wax lu nekk waxyu la wu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala moo tax bi abdullah ibnu amr ibnu al aas radiallahu taala anhu di def lu mu dégg rekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko mu bind ko yor ay bindukaayam rekk di bind am ku ñëw di ko kalaamee ne ko moom mii kat xam nga ne yow man ngay waxtaan fekk da ngay kaf wala yu mel noonu te moom lépp lay bind te lu mu bind lu nekk da koy tasaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo ko ba mu ñëw mu ne ko uktub bindal walladi nafsi bi yadihi maa xaraja min fiya illa alxaq mu ne ko bindal waat naa ci ki yor sama bakkan ne sama gémmiñ gi lu dul dëgg du ci génne kon loolu mooy maqaama sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam in huwa illa waxyun yuuxa borom bi tabaraka wa taala wax nañu ci alquran ne walaw taqawala alayna baad al aqawil nee na bu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaloon lum waxul mu ne yàlla nee na te fekk yàlla waxut nee na kon la axas na minhu bil yamin ne kon dana ko téye téye bu dëgër summa la qataana minhu lwatiin danan tàggale boppam ak baatam maanaam dagg buumu baatam la ñuy def fa ma minkum min ahadin anhu xaajiziin te amul kenn ci yéen ku mën a dox sama digganteeg moom kon waxi borom bi tabaraka wa taala jooju wax ju diis la jum jëmale ci ab yonentam mu lay wan ne kooku du wax lu ko yàlla wax loo wut loolu lépp daf lay feddalil ne ay waxam yim lay wax di la ko digal wala mu la koy tere wala mu koy leeral ci diine ji sunu borom tabaraka wa taala moo ko ko sant sunu borom tabaraka wa taala mi ngi melal ñu baax ñam tagg seeni melokaan mu ne alladina yattabicuuna arrasula ummiya alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil nee na ñu nangoo topp yonent boobee nga xam ne yonent bu dul yor xalima di bind la te yonent boobee nga xam ne fekk nañ aw turam ñu bind ko ca tawraat bind ko ci linjiil nee na muy yonent boo xam ne daf leen di digal lu baax di leen tere lu bon yaamuruhum bilmaarufi wa yanhaahum an ilmunkar wa yuxillu lahum altayibat wa yuxarrim alayhim alxabais wa yadaau anhum israhum wal aglaal allati kaanat alayhim nee na yonent boobu mooy ki leen di digal lu baax di leen tere lu bon di daganal la dagan di xaraamal la xaraam ba noppi yu diis ya nekkoon ca diine yu jëkk ya mu teggil leen ko ba mu woyof xam nga ne diine yu jëkk yi lu métte métti la bàkkaar yu bari ku ko mas a def dañ lay rey tuub sax ku koy def faqtuloo anfusakum lañ leen doon wax ku ca bëgg a tuub da ngay rey sa bopp bu sobe taqee ci say sér da ngay dagg sér ya fa sobe sa taq sànni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ak diine joo xam ne boo wéetee tuub ak sa borom mu tuubal la te kenn du yëg sax sa bàkkaar bu dara taqee ci say sér nga jëlum ndox raxas mu set wecc nga mën caa julli kon loolu mooy jéng yu diis ya nga xam ne nekkoon na ci seeni loos yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam ñëw teggil la ko waaye li ngay xool ci aay jooja la ci am solo mooy moom day digle lu baax di tere lu bon waaye day daganal li dagan foofu néewul yàlla mooy daganal mu jottali waaye day daganal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dagan waaye day xaraamal itam la xaraam day teggi yu diis ya teg woon ci xeet wi kon nga xam ne borom bi tabaraka wa taala jox na ko ci pouvoir loo xam ne su nee def leen yàllaa wax su nee bàyyi leen yàllaa wax kon foofu la waxu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toll borom bi tabaraka wa taala wax na ko nee na wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah yàlla musta yónni ab yonent lu dul ngir ñu topp ko ndax su loolu amut kon yónnee bi daanaka duutu am solo su fekkee suñ ko yónnee bu ñëwee day wax nit ñi dégg ko bu ñu noppee wan gannaaw la mu doon wax su boobaa du am njariñ waaye dañ ko yónni ngi dañoo yónni bi yonent ngir ñu topp ko borom bi wax ci aaya boo xam ne rekk doyoon na sëkk aaya yi ma tudd yépp ñu weesu ko benn bu ci nekk doy na ci kaw nga xam ne ma ne su te jëfee lislaam te delluwoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye aaya bii da ciy gën a fés wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu loolu alquran a ko wax lu leen yonent bi andil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon lépp lu mu andi ci wàllu àtte xamal ne moog la ca alquran ñooyam kon ki bëgg a ñëw ne la man de alquran rek laay jël waaye duma faale sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ne ko ah waaw aaya bi noo koy def wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu noo koy def su fekkee dangaa jëfe alxuraan danga def li la alxuraan digal te kon nga jël sunna su fekkee nag jëfewoo jël sunna kon alxuraan ci boppam da nga ko weddi loola mooy doon résultat képp koo xam ne danga ne ci alxuraan laay yem waaye duma ci boole sunna borom bi tabaraka wa taala waxaat ne yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula topp leen ab yonentam wala tubtilu amalakum bu leen yàq seeni jëf la nga cay dégge mooy ku toppul yonent bi sa jëf yàqu na te it li ngay dégge fi mooy atiicu llaha topp leen yàlla mënoon na ne war rasuula ne topp leen yàlla te toppaale yonent bi ñu xam ne kon toppug yonent bi dafa aju ci kaw toppug yàlla gi waaye déedéet da ko beral ak toppug boppam wa atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula topp leen yonent bi na ngeen di toppee alquran muy borom bi tabaraka wa taala te ngeen wattoo yàq seeni jëf ci ñàkk a topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi waxaat ne wa aqimu salaata taxawal leen julli wa aatu zakata ngeen joxe asaka loolu ak junj la ci jaamu yàlla yi yàlla santaane julli suñ borom dana julli leen rek wa aatu zakaata joxe leen asak mel na jaam ñi dañ ne ko waaw loolu nu ñu koy defee mu teg ci wa atiu rasula topp leen yonent ba laallakum turhamun su ngeen ko defee am yërmaande kon su ngeen xamul nu ngeen di jullee dellu leen ci yonent ba su ngeen xamul nu ngeen di joxe asaka dellu leen ca moom su ngeen xamul nu ngeen di aje dellu leen ca moom su ngeen xamul lu ngeen di woore dellu leen ci moom lépp lu ngeen xamul mu aju ci lislaam dellu leen ci yonent bi mu leeral ko ndax moom la yàlla waxoon na ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun mooy ki yàlla yabaloon ngir mu leeralal nit ñi li yàlla wàcce ci ñoom te def na ko borom bi tabaraka wa taala fii dafa waat mu ne fala wa rabbika borom bi tabaraka wa taala mu ngi waat ci boppam ne laa yuminuuna du ñu mën a gëm mukk xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum lu dul lépp lu leen jaaxal ci wàllu diine ñu werante ca suñuy attewu di seeti dëgg ñu dellu ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxal falaa wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayt te lépp loo atte seen xol da cay sedd seen xel da cay dal duñ ci am lu ñuy laam-laamee dañu xam ne lii la yàlla bëgg wa yusallimu taslima noonu lañ koy nangoo borom bi ne innama kaana qawla almuminina ida duu ila allahi warrasuli li yaxkuma baynahum an yaqulu samicna wa ataana borom bi nee na ñi gëm yàlla day nii rekk lañ mën a mel nan mooy suñ leen woone leen kaay leen yàllaa ko yonentam àtte leen maanaam kaay leen alxuraan ak sunna atte leen nee na nañ seen tontu mooy dégg nañ ko te danañ ko topp sunu boroom sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ boroom bi nee na wa ulaa'ika humul muflixuun ñooñe ñooy ñi texe boroom bi tabaaraka wa taala waxaat ne wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سن بروم نينا كيب كو خامي يوننت بي دافا اندي دارا nga xam ko ba noppi bàyyi ko fa xëccoo ca ak moom yonent bi nii la nga ni nii la moo xam lay woo mën a joxe nag te fekk xamal nañ la ba nga xam min baadi ma tabayana lahu alhuda mooy iqamatu alxujja faaw ñu xamal ko ni lii ngay wax nii garaaw na yonent bi bu xasee wax waxi keneen duutu taxaw waxi imaam du taxaw waxi ustaas du taxaw waxi sëriñ du taxaw waxi njiitu li ngir du taxaw bu xasee wax jeex na ma ne surtout ba teg ay waxam di indi waxi keneen su xamee loolu ba noppi ne continuer fetteerlu kooku la ñuy tudde mushaaqa wala mushaaqaqa wa man yushaqi rasula min bacdi ma tabayana lahu alhuda gannaaw boo xamee ne dëgg leer na fa moom wa yattabi gayra sabili almuminin mu won gannaaw yoonu ahlu sunna waljamaa borom bi nee na dañ koy bàyyeeg fa mu jëm bàyyi ko mu jaar ca yoon wa rek di ma xaar wa nuslihi jahannama ëllëg ma dugal ko jahannama wa saat masira te nee na mujj gu ñaawa ngoogu yàlla nu ci yàlla musal mbokki jullit yi laaya yii ma tudd nii firi lenn ci li muy tegtale laaye yooyu ak yeneen yu bari yu nu mel am na yu bari yoo xam ne moom lay tegtale mooy yi ma doon tudd léegi ba weesu ko alquranul karim li ci ñëw ci laaye yoo xam ne yuy wax ne topp leen yonent bi la ëpp na téeméeri aaya ci biir téereb sunu borom tabaraka wa taala kon nit munta wax ne damay jël alxuraan kese waaye duma jël sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mook alxuraan ñoo tolloo dëgëre ci niñ koy jëfandikoo ci wàllu diine li ñu tudde alxujjiya dëgg la alxuraan moo gën a màgg lépp ndax waxi sunu borom tabaraka wa taala la waaye sunna wax yow sunu borom tabaraka wa taala la nekk waxi yonent bi kon suñ leen dee gam-gam la ñoom ñaar ci alxuraan ak sunna rek alxuraan moo féete kaw sunna waaye bu dee nag jëfe jëfe ci wàllu diine lu lay indil pas-pas lu lay indil nooy jaamoo yàlla lu lay indil nooy defare say jikko ak sa jëflente dañ lay wax ne xojjiya boobu alxuraan ak sunna ñoo ci tolloo ñoom ñaar bel am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ lay wax ne sax alxuraan nim aajowoo sunna sunna aajowoowul noonu alxuraan ndax alxuraanul karim bu sunna ñëwut kenn du xam li muy wax waaye bu sunna ñëwee rek ñu door a xam li muy wax waaye teewul nag kenn ku ci ne da ngaa aajowoo sa moroom ndax sunna it li ko jox sharciya maanaam li tax mu am pouvoir ba sañ a atte di def ñuy jëfe alxuraan a ko ko wax moo ne wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon ñoom ñaar dañuy complété complémentaire moo dox seen diggante boo xam ne dañuy mottalente al imam al xatib al baghdadi ci téere mi ñu wax al kifaaya dafa indi bunt boo xam ne dafay tegtali li muy wax daf ne baabu ma jaa fi taswiyati bayna xukmi kitaabillahi taala wa xukmi rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne bunt bii daf ciy leeral luy wone ne ci atte day alquran ak sunna ñoo ci tolloo manzila tomb ba ca tegu mooy ñu xam ne képp ku lànk ne du jëfe sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko jël kooka ku génn diine lislaam la gannaaw boo xamee ne xam na lu rëy lim def moo tax al imam ibnu hazm al andalusi ca téeram ba ñu wax milal mu ne su fekkoon ne am na jëmm joo xam ne daa jóg taxaw ne nun day duñu jël lu dul li nekk ci alquran nee na kooku la kaana kaafiran bi ijmaai l umma nee na xeetu lislaam yépp dëppoo nañ ci ne kooku génn na diini islaam te nee na kooku mënta julli nee na ak julleem fi mu mën a yem mooy benn rakkaa boo xam ne da koy def waxtu fajar ak benn rakkaa boo xam ne mooy bu jant bi fenkee waaye lu mu ca dolli rek dana delsi ci sunna waaye man damay wax ne rakka boobu sax ngir mu def ko dana delsi ci sunna looloo ngi ci kanam al imam Shaatibi nee na wax ne da ngay jàpp ci alquran daal bàyyi sunna nee na loolu rayu qawmin laa xalaqa lahum rayu qawmin laa xalaqa lahum nee na loolu xalaati ay nit lañ yoo xam ne amuñu cër fa yàlla amuñu cër fa yàlla xaarijina an sunna nee na ñooñu ñu génn yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ca tegu mbokki jullit yi mooy ñu xam ne suñ demee ba jëmmi jamono ci suñ jamono yu mujj yii ay nit di feeñ di wax ne ñoom dañuy jàpp ci alquran yi kese bàyyi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax nañ ca xutba bi weesu ne ñooñu am nañ tasaaroo nañ it ci suñ jamono agsi nañ it ci suñu réew waaye loolu daf lay gën a fedd lil doon gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ab yonent ak ci ne boroomam moo koy waxyu ndax yonent bi ci boppam waxoon nanu loola xadiisa ngi boo xam ne abu daawud ak tirmisi ak ibnu maaja ñoo ko jële ci almiqdaad ibnu maadi karib radiallahu taala anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alaa wa inni uutiitu alquraan wa mislahu wa mislahu maahu man de wàcce nañ ci man alquran waaye jox nañ ma leneen lu mel ne alquran kon loolu mooy sunna lu mel ne moom ci xujjiya ne alquran di àttee noonu lay àttee mu ne nit dana ñëw koo xam ne day lekk ba rekk tëdd ci fotoyam rajulun shabaan ala arikatihi lekk ba rekk di jaaxam ci fotoyam ne aleykum bi hada alquran jàpp leen ci alquran ji fa ma wajadtum fihi min xalaalin fa axilluuhu lu ngeen fekk ci alquran mu koy daganal jàpp leen ko lu dagan wa ma wajadtum fihi min xaraamin fa xarrimuuhu lu ngeen ca fekk ci lu muy xaraamal nee na jàpp leen ko lu xaraam nee na nit a ngi ñëw koo xam ne noonu lay def borom xam-xam yi nee nañ mandarga la ci tàyyeel ak bëgg lu yomb lekk ba regg jaaxaan ci sab canapé di wax tàyyeel sàkku xam-xamu sunna doonul xam-xam bu yomb bu diis la bu jafe la boo xam ne dafa laaj laxasaay di jàng guddi ak bëccëg say nelaw néew sag lekk néew sag nopp lu néew kon ki lekk ba rekk jaaxaan ci fauteuil moom jàngiwul xam-xam nanguwut a sonn gëstuwut toog rek ñu jël leen alquran lu ngeen ci fekk daal jël leen ko lu ngeen ci fekkul lu ngeen ko jël yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu tekki ne wa innama xarama rasulullah xam leen ne lu yonentub yàlla araamal kama xarama allah moog lu yàlla araamal ñooyam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu xaraamal moog lu yàlla xaraamal ñooyam bokk na ci liy fedd li ne ngir ñi wax ne dañuy jël alquran bàyyi sunna ngir mu yàqu la seeni wax wax ju yàqu la mooy tomb yi may tudd ba ci jëkk mooy ñoom suñ bëggee dugg ci lislaam lu ñuy def wax naa la ca xutba ba la weesu ne seen waa ji nee na suñu dugg ci lislaam dañu wax ashadu an laa ilaha illa allah rek waaye duñ ca boole ashadu anna muhammad rasulullah waaw ashadu an laa ilaha illa allah jooju fu ñu ko jële ndax alquran moo leen wax ne kuy dugg ci lislaam da ngay wax ashadu an laa ilaha illa allah déedéet sunna kay ko wax ñu ñëw jël leen la bàyyi la ca des kon contradiction daal nay dugg foofu ci seen seenum ngir te it nodd ci boppam duñ ko mën a def mukk wax naa la ci bi weesu ne suñu nodd it dañuy wax ashadu an laa ilaha illa allah waaye duñ ca tudd yonent ba waaye ashadu an laa ilaha illa allah jooju yi ñuy wax ci nodd gi moom it fu ñu ko jële ak jëmmi nodd sax ci boppam ku leen wax ne ku bëgg a julli da ngay taxaw fi béréb yëkkati sa baat di woote loolu jëlewuñ ko ci alquran waaye ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la saxee su fekkee dañoo bëgg seen yëfi bopp yoo xam ne ci alquran dong la nekk kon nañ yem ci alquran waaye buñ buñ jël dara loo xam ne lu jëm ci sunna la julli mënuñoo julli benn rakka bu sotti parce que ku julli ab rakka ci lislaam da nga dellu ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fuñ jëlee ne kuy rukkoo da ngay jàpp ci say oom sëgg fu ñu ko jëlee parce que rukuwa ci lugatul arab ci kàllim ak arab yi rek rukuwa firiwut loolu waaye sharia moo ñëw yonent bi jàngal na ne kuy rukkoo kat da ngay jël say loxo teg ko ci sa bëti woom sëgg sa gannaaw tàlli ba tolloo ngay xool ci sa bérébub sujjóot loolu fu ñu koy jëlee nekkul ci alquranul karim ku leen wax ne julli yi juróom la su dee ñaari julli la ñuy julli ndax am na ci ñoom ñoo xam ne nee nañ ñaari julli rek la ñuy julli te julli gu ne ñaari rakka lañ ko jële fu ñu jële ñaari julli yooyu ak ñaari rakka yooyu ñuy wax benn rakka bi sax fu ñu ko jële duñ mën a julli benn rakka te delluwuñ ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam charte julli kan moo leen wax ne ku bëgg a julli da ngaa war a jàpp kan moo leen wax ne kuy julli da ngay xaar ba waxtu wa jot wan waxtu alquran daf ne inna salaata kanat ala almuminina kitaban mawqutan alquran de daf ne julli am na waxtu waaw wan waxtu la ku la wax ne waxtu fajar la wala waxtu timis waxtu gee waxtu tisbaar kan moo indi waxtu yooyu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kan moo leen jàngal ku rukkoo ne da nga fay am looy wax loolu nekkul ci alquran soo waxee benn baat ne lii lañ war a wax ci rukkoo bi rek dégg naa ci ñoom kuy wax mu ne li ngay wax benn yoon nga ko war a wax waaye benn yoon boobu ku mu jóge foo ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo yëkkati koo ci rukkoo bi looy wax boo sujootee looy wax boo yëkkatikoo ci sujoot bi looy wax kuy taawa looy wax nekkul ci alquran kuy sëlmal sax looy wax asalaamaaleykum di ngay wax wala ngeen asalaamaaleykum wa rahmatullah foo ko jëlee kon ñoom seeni julli yooyu yépp du ko mën a am luñ ci amal foofu rek dugg nañ ci contradiction maanaam juyoo nañ ak seen lañ saxaloon boo dikkee ci asaka lu mel noonu nga fay fekk ndax alquran leeral lu nu asaka daf loo digal rek dem leen joxe asaka sunna moo ñu jàngal nu ñuy joxe asaka lan ngay am asaka door a am war ci yow kan moo la wax ne alal ji da nga koy yor ren ba déwén asaka door cee war loolu nekkul ci alquran alal yi ñu war a génne asaka muy jur gaag tool ya mbay maag xaalis baag xeet yooyu kan moo la wax ne asaka da caa war loolu nekkul ci alquran alquran joxewul détail yooyu kon suñu bëggee joxe asaka faaw ñu dugg ci contradiction boo ñëwee ci koor loola nga fay fekk kuy woor kañ nga war a jàpp koor ci boppam kañ nga war a dog lan mooy yàq koor ku la wax ne boo wooree sañoo jël ndox naan ci bëccëg bi nekkul ci alxuraan alxuraan nee na bu leen lekk néewul bu leen lekk bu leen naan daf ne woor leen rek moo tax ñi nga xam ne seeni ngir dafa gën a yàqu te ñu gën a fës ci mbir mi muy ñu ngi tudd albatiniya bi ñu agsee ci koor di ko firi moom as sawm dañ ko firi firi luxa ñu ne mooy sukkuut ñu ne bu koor dikkee da ngay gàttal saw làmmiñ waaye mën ngay lekk ka naan kon ñooñu seeni ngir moo gën a fës ñii waaye ñeet kat lu mel noonu moo leen di dal ndax kenn mënta jële ci alxuraan yi yàq koor ñu ne la nangam ak nangam ak nangam moo koy yàq kon ñoom suñ koore suñ wooree mën nañoo lekk mën nañoo naan ba ca tegu mooy bu dee ci aj noona lay mel ndax alquran détaillewul aj kuy armal nooy def nekkul ci alquran lan mooy miiqa buy frontière bi nga xam ne sañoo koo jéggi buy aj nekkul ci alquran lan mooy ponki aj yi nga xam ne bu ci benn yàqoo aj gi yàqu na nekkul ci alquran ñaata yoon la aj nekk farata ji dundu nit ki nekkul ci alquran lan mooy yàq aj ay détails am nekkul ci alquran ay junj rek moo ci nekk yi ma tudd nii muy shahadatu an laa ilaha illa allah ak julli ak woor ak joxe asaka ak aj yooyu mooy ponki lislaam yi misaal rekk la ci lislaam jépp képp koo xam ne tënk nga sa bopp ba mënoo def ponki lislaam yi xamal ne ngir ma nga nekk moom du ngirum lislaam loolu moo tax ngir mi ñi ci masa soobu ñépp boroom xam-xami lislaam ya nekk ca seeni dëkk dañoo dajaloo àndandoo jéebtaane leen ba nit ñi xam ne ñu réer lañ ñu génne ab xukm boo xam ne boroom xam-xam yépp a ko signé ñu ne ñii ñu génn diine lislaam lañ te sañatuñoo wax ci turu lislaam bu dee jeneen diine lañ nekk nag bu leen neexee ñu wax ci seen diine yoo xam ne juñ gëm la waaye diine lislaam moom duñ ca sañatee wax li tax li ma wax ci xutba bi lépp doon alquran te indiwuma xadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne kenn xamul nu mu toll ci luy santaane ne jàpp leen ci li leen yonente bi alayhi salatu wasalaam andil li ko waral mooy ñooñi nga xam ne wax ji ci ñoom la jëm ñoom gëmuñu xadis gëmuñu waxi saxaaba yi gëmuñu waxi borom xam-xam yi waaye dañ ne rek ci alquran la ñuy yem kon ñu ne la alquran a ngi nii nag moom di la wax ne demal ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn nga def lim wax doon ab jullit wala nga lànk bàyyi lim wax ñu xam ne alquran mi ngay wax sax kon toppoo ko kon ñi nga xam ne dañoo tudd seen bopp alquraniyuun wane ne alquran la ñuy topp te duñ topp sunna ñooñu nañ xam ne dugal nañ seen bopp ci guta goo xam ne mënuñu caa génn lu dul ñu tuub delluwaat ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون